Coco Pulp, un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau. parfum de glace déclinaison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 Béaz, Manifesto, Yves Saint Laurent. <laughs> la petite robe noire de Gerlin ngay la petite robe noire de Gerlin Béaz. surprise yow nag Béaz one million ngay déclinaison des parfums de classe Béaz am marché Bodem dem boutique bodem dem Fille Moy bazar amul hasard famille bi yëpp lépp lu ngeen soxla am na ci biir. xibaar bu neex lu neex maa la koy wax xibaar bu mucc ayib yéen ñi nga xam ne yéen a dëkkee Castor jëppal ak li ko wër képp ku dëkk ci ndakaaru képp ku dëkk ci Sénégal dégg bu baax li ma lay wax boo ñëwee fii ci ndakaaru ci immeuble EMG rond point échangeur an zone de captage fii lu fi way amul rek du ko wërul bazar lañ wax de bazar.

كل مكان ko kala maar maar looy def fii danga fàtte ne ayewu fi tey wala dangaa bëgg ñu jiima ne damay sàcc ay Mariétu dama laa soxla soxla waaw dama laa soxla soxla bu mënul xaar suba déedéet mënul xaar suba yegg Dere dere, fi baxna maret maret gis nga yow ak soxna bator bu ngeen di wujje dama bëgg mu yam ci kër gi sama bureau sama liggéeyu kay la bëggatuma nga fay ñew di fa tek sa tank gis soo amee loo lijjanti bàyyil ba nga ñëw ci kër gi nga doog koo lijjanti est-ce que dégg bu baax a baax loolu nag laa amoon pour wax la ko parce que woon xaaraa voilà. wala fi nga sa marchandise bi. enlevé mu ko ci àdduna. ale bi moom nekk si suuf ak xale yi xam nga ni foofu boo indiwul facture duñ la jox say bagage xanaa bëggoo ko la wàññi. ah. ma ni. xanaa bëggoo ko la wàññi. an kay. ñaata nga waroon fay. man boo ko xaymaa de neuf millions laa waroon fay. neuf millions. ya menaruh ke dekatnya ya gitu ya menaruh ke wanya bekatnya orang ini wana asik eh rosy rosy rosy rosy rosy rosy Mungkin ini wana asik no no no no sekolah masih soxlaaw ma chèque liquide laa bëgg. liquide mel. waaw parce que chèque dafay bàyyi trace te li may def bëgguma mu am benn trace. Mm-hmm. yaa may dégg. waaw xaalis laa soxla par pièce par chèque. lenn de xamal ko damay daw léegi banque ba indi nga alima mi suuf bu dara dara dara dara gis nga su meloon ni yow te wax na ay kër yu bari. alima man mu mel ni man. moo ko caatu na. man mel ni man mm, yomb na.

ana monsieur Lo. monsieur Lo dafa dem port. dafa dem port. waaw. Alimatou. del vérifier compte entreprise bi. vérifier compte. pour lan wax. day vérifier compte entreprise bi. sinon liy liggéey at dinañ ko ñàkk. looy wax nii. alimatu max day dugg ci biir bant di ko lekk ay at bu paree kenn du ko jariñoo eh bàyyi sa cax yi may cax te nga wax ma wax ji loolu daal laa am pour wax nag na ngay vérifier compte entreprise Assane kaay ma gis la Míralo. nekkal naa ni tey bul daf lii sa lekk la yaa ko moom. madame Lo entreprise bi nekk naa fi at waaye xamuñu lii te man kenn jënd ndax njaayu eh Assane doo jël. soxla lan nga def sama bureau. yow laa doon xaar. xaar ma pour lan. yow laa doon xaar pour dànkaafu la. dànkaafu lan moo xew. sa employé bi Assane. waaw. mu wër nag di yàq sama der di yàq sa der nee man lu ma bëgg yow moom nga bëgg loolu moom c'est vrai. parce que man li ma bëgg yëpp yow nga bëgg nee na yow li nga bëgg man moom laa bëgg nee na entreprise bi ñu nekk papa yaay doom la. et alors léegi lan mooy problème bi de toute façon asal bon musuma ko xamee wax ku yaru la mais bu demee bay wax bàyyi ko mu wax wax takul fenn te ku bot bukki xaj mbaw la. gis nga kaay jiite mooy kaay ñu la te ab réew boo fi tekkewul dara kenn du la tudd buñ la tuddee rek c'est parce que am na looy représenté loolu amul solo bàyyi la ñuy wax nañ ko sante yàlla. lu dem wax. lu may wax leneen nañ sant yàlla rek.

xamna naa ne dangay maquillé dama ne la li lan moko waral Bigué. ah maman man amu droit maquillé wu damay maquillé yow rek dara xewul. Bigué lu musul am bu démé ba am amna lu ko waral da nga commencé farantu. waaye léegi yaay man damaa amul droit am ku mu bëgg. bi am nga droit bëggante mais dafa teel torop yow ko gis muy jangi di mag yow nga rafet na lii moom ànduma ci rafetul de ànduma ci da <laughs> yow da nga bañ màgget rek ayo mo moom lan ngay retaan ni sa doom. <laughs> sama ban doom. biige biige danaa daje léegi mu mag yeewu ba rafet macha allah. <laughs> mais loolu léegi lan moo ci nekk jigéen la non. xamoo lu ci ne. lu ci ne. biige dafa am far. comme yow doo yëndu ci kër gi xamoo lan moo xew. góor ñi dañuy dugg di génn di dugg di génn doo comprendre sax nag chaque jour chaque jours sa kër gi moom kenn xamatul lu mu ñëw. yow gën lan. dégg lu ma la wax. kii gi dafa am lan. am far. yow yor nga say bët. ko ma xool. sa doom ji ma gis nii dinañ ko biiral ci mbedd mi te gis bu biiree. yow yaa koy yëkk loolu moom leer na ma moom dina la doom joo xam ne doo xam kan mooy baayam de mais tu ne manges pas doo ndekki 100% Caro White. le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Io vorrei capire cosa stiamo aspettando. kan la ñuy xaar man ngeen doon xaar. waaw capsule. café Touba international mooy suñu café. mu ni moom lañ doon xaar. sunu café Touba international amna capsule by épicé classique intense ak jar nature intense sans jar amna sachet 500 grammes à 250 grammes. sunu café Touba international mon lañu don Aujourd'hui, c'est le jour. Je dois briller, épater, éblouir. Ma devise Bien dans ma peau, bien dans ma tête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 noo def. yaa ngi ci jàmm. Mhm. dama ne woon balaa maa dem liggéey dinaa ñëw waxtaan ak yow euh, dama la bëggoon yóbbante ci biige. biige. biige waaw. lan moo xew. dama bëgg nga waxal ma biige nekkoon na bàyyi góor yi muy dugal ci sama kër gi loolu neexuma maar. fii benn góor dugg fi di seet si biige ñu ko fii seet si yëpp waa classam lañu te ñu seet si ko moo gën mu leen di seeti maar biige yaa ko yar xam nga ko bu baax Marietu li ma la wax est que mën nga ma ko waxal biige waaw walla déet te du ko dégg eh. lii nag. dépasse bi la. xanaa nga fàttali yaa yaa aye. mais man damay liggéey. teen lii lan la lu ma koy doy nga dem jox ko ma reetu ndax man damay liggéey teen yow koo yab man maay sa morom dama nga jox ko ma reetu ma nga ca kaw man maay sa morom boo yónni xamoo sa bopp lii pour lan la. dépense bi la dama bëggoon nga toggal ma añ bi. teel moon la ah, toggal ko sa bopp. oui ça va barki no def euh, yéen yor agence d'intérim bien ah? Jank la bëggoon Légui nak la ko soxla légui légui légui. ok wa ok mhm. non non non amul problème Lolu mom mom amul ben problème sama jëkkër man na inshallah dina ko fay amul problème na ñew légui yeen lay xaar. ok maa leen di xaar maa leen envoyé sama adresse ok maar li mu def dara rafetu si li mu def dafa ñaaw war na jël soxna batal si entreprise bi soxna batal am suba am ngoon yow nga toog ci kër gi pour lan lii sàcc ay la mariyeetu ngoone li dara nekku si ñoom dañuy xëy liggéey rek taman mii defuma fa dara bàyyi leen ñu liggéey lu ñu am andi ko ci kër gi bokk kook ñépp Mariette lu ñu wax rekk nga ne dara nekku ci bu doon man la de du ma ko nangu gis nga ngoone bu doon man la tas na sëy yu bari mais du yow man la en tout cas daal maar su ñëwee dinaa ci waxtaan ak moom ndax lii jekk ko rafetul te duma ko seetaan jàbb jàppale ma rekk bul wax daara maar defal ma loolu baax na dégg naa la waaw man la mais foo nekkoon booba léegi maa ngi lay xaar bu ma changé wu dugg ci waañ bi di commencé liggéey bi. maa ngi jégalu de madame embouteillage bi rek moo bari woon. mais borom agence bi waxuma woon lii de. loolu la waxoon. Adam waxuma na yow da nga rafet. ñi rafet amuñu liggéey. non non non mun ko ma loolu de <laughs> ñu rafet am nañ droit liggéey bien sûr mhm. mais lenn laa lay wax sa bët yi bul ko teg ci sama jëkkër ndax maa la gën a capable te maa la gën a bandi dégg nga ma madame la sa xel daal man wut jëkkër indiwu ma fi daan sama doole moom fi indi mu tudd Fanta Fanta Seydi

Ah. dama ñëw pour prévenir la monsieur ku baax la ba mu commencé liggéey loo import export ba léegi dama ci gis sama bopp. macha allah ma gisee nag lu koy yàqal damay ñëw pour prévenir la. lu ko bëgg a yàqal lan noonu Assane. monsieur Lo sàcc la dugal ci kër gi ba pare jël caabi kër gi jox ko. kan mooy sàcc foofu sa wujju soxna Bator ay millions lay sàcc ci kër gi te bu yàggee kër gi dina daal soxna Bator lu muy doyee sàcc ay millions Assane maa botoon maa yëg nga ne sa xeetu jongoma ci réew mii gaa yi waxtaan nañ ba validé ko mhm. yaa fa ne xoolal lii ma ci waxul dañu doon soxor mhm. te xaar xam fi ñu ñaanee neew ma fa mhm. xam nga su ma nee ñuul ni ma kukk kukk ma ne weex na dina tàll tàll neex na nga dafa dàq jeex na sa sëy bii dina neex ma dàq fa loolu madame Lo ba ngaa baax madame Lo général yow loo baatere doyul defal ndànk man la ko jox <laughs> billaay wallaay <laughs> yow séduire nga ma de Moi, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. lan. li tubaab naan li tubaab naan je t'aime beaucoup. moo ma dal ci moo ko man a ko waxal je t'aime beaucoup. aw ma ca kersa eh madame loo loo ma ca ndaam loo sire. loo ma ca ayre loo mu neex maa woo. loo mu neex ree mu xool ko loo wax. xam nga ni loo jëloo sa diw mii rek def loo baatare doy yow yow foo fekk sërëm ak ci fa nga koy bàyyi. billaay wallaay tey noir suñ suñ naataango tey noir la. eh mbaa yëg nga ne beauté africaine fii ci Sénégal gii beauté Sénégal yaa ko téye. Mm-hmm. ñoo ngi koy jëw de dégg naa dox demoo sélection di miss. koo yónni mu dem nañ ko nag ndax tey noir la koo yónni mu dem. kii bàyyi kii. yow koo yónni muy xaar booba dalaa xamut. Mm-hmm. sa juróom ñaari maam yëpp Louga lan dëkk. ay seen monsieur Lo nag ci réew mi dégg nga lii oh loo ma ca ndaam xam nga jëloo seen tig rek mu mën a bomb taatu cin te dépense bi xam nga ni nooy na doomi bete bete da da koy niru man di def ci télé rek laa ah cuub botoor sama waaji sama waaji xët nga xatum jeeg fekk mu ma waay gàccee gi ci dama gi ci waaw xar ci moom dégg nga lii sama xarit lu ma ci wax doyul botooree

yow la kan ak looy def ci waañ bi. man la Fanta bi soxna Batoor moo ma jël pour ma koy toggal. Hmm. kon yow la Batoor jël. waaw ah moom kat daf ñu waxul dara loolu moo tax xam nga xàmmee ma la ci kër gi. c'est vrai man sax loolu jaaxal na ma ndax ma ñëwee présenté wu ma kenn. ak si nag jàmm yaa ngi biir Lowen. merci. nañ dugg ci biir ma présenté la waa kër gi yëpp. waaw d'accord merci. sama awam bob Allah tangi da yangi gañ <laughs> bay toy ah masalah. Kamu nak ah ça va tangor ah hmm. <laughs> ni ngi nii rek waaw lo setan ni man de vidéo soxna batori lay setan seetaan soxna mi nek ci dekk bi di batere gis na li nak dang ci wara wax ndax sa alolu jëkkër la mu koy jël di passer pasar du deug du yoon li lu lu lu dang cey wara wax bu baax ala jëkkër ji man ak mom ñoko bok da nga ni man xaalis andiw ma fi ta xaalis tamit dëju ma fi loolu moom dëgg rek li nga wax ni deug la waaye lii di raam nii si ñag bi la jëm waaw moom sax anamu. soxna Batoor. Hmm. sànq de maa ngi ko gis mu yéeg. Hmm. waaw baax na dinaa wax ak moom. <laughs> d'accord dinaa wax ak moom ah bii de war nga kaa jox code. yow daal lépp code. Eh? wala yow sa tailleur bi mënoo ko boole kii code mu koy ñëwal. loolu am benn problème. ah lii de moom problème la code xam nga dama ko amuuree. <laughs> soxna Bator yow lan ngay reetaan rek lan ngay reewati lan moo xew sa kër gi de léegi comme auberge <laughs> bii gi sa doom day entrer di sortiir di sortir di entrer xale bu tuuti <laughs> ki teel la farantu de mais soxna Bator lan mooy loolu xamoo luy loolu wàcc nga dem ci saal bi bii gi daa entrer entrerá de faz el bicho. Ay. Mango aqui. un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau. parfum de glace. déclinaison à Beyaz. nagaji jaay leen nu ànd bëggee si nagaji bëccëg sa Awusi awu si nagaji taasul sa jabar felu si nagaji déggal sa goo bëggu ko nagaji seer sa njëkkee dëgg si nagaji yàqal sa jabar nagaji bul ya ko nagaji Sénégal, Sénégal, oui, oui, la gueule.